asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi fi teew bokki taalibe yi ñoo ngi santaat yàlla sunu borom cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul mukk fu mu yem ci mbaaxam ci yërmandeem ci tawfeexam di ko tuubal ci mbooleem sunu yële ci ci pas-pas ci kàddu ci jëf delli di ko ñaan mu gën noo dëgëral ci siraatal mustaqima te gën a dox suñu diggante ak seytaane te dolli noo musal nun ñépp cim ndog ak pakk ak musiba ak balaa di ñaan xéewalam ak muccam yàlla bu mu dañ di dottiku ci jaamam tey ndawam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak mbooleem ñi àndandoog moom te dëggal te doon sellal ngir kawel baatub suñu borom di jaajëfal Maulana Seyxina al Xadim di ñaan suñu borom wam matal ko lépp lu mu tànn di ñaan ki tooge ab jataayam Cheikh Mouhamadul Muntaqa suñu borom yàggal ko lool te may ko ak wér te dolli ko kàttan ak tawfiq ba yéeneem ak naalam yu rëy ci liggéeyal sëriñ bi ci lislaam mu jëf ci lu kawe njortam te nu ànd ko ak moom ak njabootu sëriñ Touba gi ak jullit ñi ñëpp bokk yi bokkal dëkk réew mi yëpp tey ay mbindeef fi yàlla na yàlla dolli jàmm ak tawfiq ndax ñun ñëpp ku ci ne sa jàmm sa jàmmi moroom la di ñaan sunu borom nun ñëpp mu bokk nu jéggal sunuy rëcc rëcc yi weesu yëpp te li ci sunu kanam it mu gën noo xiir ci boppam te waxtu wana it ku ne di seetantal ci boppam ndax lii nu def kat pexe mayinu ko njàmbaar mayinu ko yitte mayinu ko waaye coobareem rekk la ak ngënee la ma ko jagleem nii nu fi teewe woon daaw mu may nu kàttan ak tawféex akug wér ak xel ak sago nu fekkewaat ko nii loolee coobareem rekk la ndax am na ñuñ fi nekk ndooloon daaw ba démb rekk sax te suñ boroom moom na leen ñu géntal àdduna géntal goo xam ni duutuñu ko sancati mukk ndax àdduna kat kër la goo xam ni bunt bi nga duggee soo duggee yaa nga jëm ca bunt ba ca kanam te soo génnee it jeex na kon nag ñun ñépp muy sant sunu boroom ci ay xéewalam ci sunu jëmm ak ci lu nu wér li may wax waxtu wu ne nag doomu aadama ñaare lépp lu mu am du ko xam bala koo xam rek daa am lu ca tàbbi fii ne ki wir ki wir du xam njariñal wér mukk feeg yaa ngi xëy di dox aka wax ne ci sa yitte te dara gàllankooru ko dangay defe ni li nga nekk day lu normal la boo ko doon wax wala lu jaadu na wala loo xamante ni melow yi sax la te fekk àdduna wenn melom saxut wér gi nu am ak kàttan gi ak man gi waxtu ne lu ne mën na cee tàbbi mooy tax sunu borom bu la defalee jàmm nga ne ci jàmm ci nga ko war di gën di ñaane njëkk leneen di dikk waaye nun ñi ci ëpp balaa farloo am musiba daa teew ci sa kanam mbaa jëfañ-jëfañ dikk mbaa xat-xat dikk fekk bi nga nekkee ci tawfiq nekk ci jàmm ak sutura booba nga war di ñaan sunu borom mu saxal la ca jàmm joojee ak tawfiq joojee ak sutura soosee bi ngay nekk ci siraatal mustaqim mu wóor la ne suñu borom mi ngi lay dimbali ci ak njub nga di ko ñaan waxtu wu ne mu di la ca saxal te di la ci gën a dëgëral tey gën di dox sa diggante ak seytaane ndax li ma wax léegi kat àdduna melo yu bari la amee te nit ki yorut ak dundam yorutit ak deem ni nga xamante ni yorutoon tànnutoon fi ko suñ borom di jaarale ak fi mu koy wàcce ak ni mu koy melal ak li muy doon benn jaam tànnalu ko boppam sunu borom mooy dogal ci coobareem nit ki mu def ko nit leneen mu def ko leneen bi mu la defee ngay doomu aadama it fi nga juddoo tànnoo ko coobareem la ni nga mel it tànnoo ko coobareem la waaye noonu yi tamit nag sa dund gépp ci coobaree sunu borom ci lay dox te fi nga toll nga xam waaye li ci sa kanam xamoonu suñ borom di jëflante ak yow li tax waxtu wu ne ab jaam war di tiit war di toroxlu war di sant war di tuub war di ñaan umpule li ci sa kanam ci la bokk ndax yàlla may na nu jàmm tey may nu tawfeex tey may nu sutura tey noo ngi ñaan mu saxal ko waaye dunduk adduna ji rek li ci mën a xew dafa bari li ci mën a gaar doomu aadama yi dafa bari ndax yàlla rek a xam suba boo gisee jaam ñi war nañu yéenante jàmm war nañu yéenante xéewal war nañu yéenante mucc war nañu yéenante sutura lépp lu dal sa mbokkum jullit bul ko ndokk mukk ndax xamoo lu ciy sëb cër ni ma koy waxe waxtu wala day léeg-léeg nga gis kuy ndokk ab jaam ci lu ko dal te fekk li ko dal sëb cër ngi ci danga cee àggugud rek ndax loola yow sa kumpa la ba tax na guddi yu mel nii di guddi yu njëggal di guddi yu yërmande nga xam ne lu ci waay ñaan suñu borom te sellal ko suñu borom mën na ko ko defal ku ci tuubal yàlla it lu bàkkaar ba rëy rëy rëy suñu borom mën na la ko jéggal ndax suñu borom kat wax na ne bàkkaar bu tolloon ni diisu géej it bu jaam bi tuubee mën naa ko jéggal bu tolloon ni peppi suuf yi it su jaam bi tuubee mën naa ko jéggal bu tolloon ni nooyu bindeef yi it su jaam bi tuubee mën naa ko jéggal kon guddi gi guddi jéggal la ci ki ko sellal te yéene ko te am ca taxawaay ba waaye guddi la googi lépp lu ci ab jaam di ñaanit mën na caa dajeek tawféexi suñu borom suñu borom nangul ko ko mooy tax guddi yu mel nii ku ci egg war ngay farlu ci ñaan war ngay farlu ci tuub war ngay farlu it ak sant sunu borom subhanahu wa taala kon li ñuy gën a dénk sunu bopp mooy dund lu ne xaj na ci biir dund ba tax na nañuy gën a rafetal suñu diggante ak sunu borom waaye nañuy gën a rafetalit suñu diggante ak sunuy moroomi jaamu yàlla yi di yéenante jàmm di yar sunu bopp ndax guddi gi kat li muy màgg màgg ak guddi yu mel ni moom ak bis yu mel ni moom ak barab yu mel ni moom ak ngay dajeeg jëmm yi suñ borom di wuyoo ay ñaan ak ñi nga xamante ni boo toogee fi seen keppaar suñ borom mën na lay defam jéggal ak yërmande dafay laaj nga teewe fa ak teewlu ci xol bu laab ci xol bu set ci lépp lu yàlla gërëmut xol bu set ci rëy xol bu set ci añaan xol bu set ci njëstal xol bu set ci rambaaj xol bu set ci naw jëf xol bu set ci jëf bëgg ñu di ko ñu di ko tudd xol bu set ci rëy jàpp ne yaa gën kenn ci anam gu mën a doon loolu yi day mooy ndab yi nga xamante ni ku ko taataan ci guddi gu mel nii suñ borom mën na laa duyal say ndab ba mu fees bu dee njëggal ngay sàkk bu dee yërmaane ngay sàkk bu dee ngëneel ngay sàkk bu dee tawfeex ngay sàkk lépp suñ borom mën na laa dajale moom ci guddi gi kon noo ngi sant bokki taalibe yi nga xam ni bi weer wi teroo ba léegi ci béréb bii ñu ngi koy dundal ci bernde te bernde nekk lu am solo muy di dogal way woor ñi te jëmmi suñu borom rekk tax lépp lu ci way jëf na nga xam ne yàlla mi tax ngay jëf tam xiir la ca dégg na la gis na la te lëm ca dële it na la wóor ni da nga dajeek moom fii ci àdduna da nga dajeek moom ëllëg yomal xew kon yàlla na yéen yàlla nangul seeni jëf te mot li leen seeni yéene taxawaay bi rafet na taxawaay bi it matale na waaye weer woo xam ni lépp loo ci jëf bu dee benn la suñu borom mën na koo ful ba fukk ba téeméer ba lo ko soob yaakaar naa ni lépp lu ci ni def su ëllëgee bu ñu takkee say tànk takk say loxo danga ko xeeb ndax foofa kat dara du fa doy gis nga àdduna ji nu nekk lu ci waay am fi mu ne xeeb nga ko yaa ngi wut la ca topp gisaguma kenn kuy wut adduna ba xëy toog ne man day wuteetuma dara maa ngi toog wutatuma genn dolleeku ci adduna man day dajee guma ak nit ku mel noonu koo xamante ni xëy na lu mu bari la bari la bari la ñi la fi ëpp la ñoo la dàq wut te duñ tay duñu xat mukk waxtu wane lañ am ña ngay seet lu ca dolleeku noonu ñu def ci adduna mi gent nag àllaaxira mi nga xamante ni ku fa dem dootoo fa jóg mukk te fa ngay sax ba faw bu ñuy wuta nii ci adduna benn junni lañ wut lañ war a wute noonu àllaaxira kon loolu yi nañ koy bàyyi xel bu baax di lebal sunu boroom te sunu boroom kat loolu waxin la rek ci bu ngeen bu ngeen lebalee sunu boroom mu fay leen waaye ab jaam wurtu leblente ak boroomam ndax ba mu nuy bind ñu jaamu ko moo tax ak ne ci lim bëgg ak teet lim tere kon nag kum dimbali taw feexal la sa yëngu ak sa dal di di rëbb ak njub di rëbb ngërëmam lim la wër sa galit ngay fexe di ko dugal ci lu ngërëm na la wóor ni sa jant am na fu mu tàmbale waaye amu fu ñëm te li may wax waxtu wana it fi mu ne ku sonnut ci lu baax sonn ci safaanu lu baax suñ jëmm yii suñ kër-këri wut ci yàlla it kër-këri ci lu dul yàlla fi mu ne ku fanaane wut ci lu mel nii tamit fanaan ci safaan boo xamante ni bu ëllëgee réccu dong la lay jural fanaan ci lu mel nii nag loo xamante ni heure boo tollee ci di xar-xarle buñ tegee image bi ci sa kanam tàmbalee fa nga ganee adduna ba fi nga tëdd di xar-xarle foo fi jaar ñu di la ko won yaakaar naa ni da nga bëgg lool ñu sa jataay yu bu mel nii ci tudd yàlla ci tuubal yàlla ci jëfal yàlla boo sañoon écran bi ngay jan lool loola rek nga cay gis leneen loo ca gis lu dul loola boo sañoon doo ko gis te nit day su tëddee ci laru sukuraat war a génn adduna mboolem jëfam yépp suñ borom dana ko ko tegalaat balay génn adduna di ko gental waaye buñ ko yooree ci bàmmeelam lépp téere lay doon boo xam daf koy njëganaa yow waaye heure bu jógee foofa it taxaw ca bis pénc ba moo ko ay jëfam ñoo fay bokk taxaw mooy tax nun ñëpp ku ne na yitte woo boppam ku ne na yitte woo boppam ku ne it nay ne meeku boppam waaye nun nun li ëpp ci nun ci ayib bi jàmbur yi rek ci lañu nekk kenn nu seetut sa ayib nooy def ba tàqali koog moom waaye yaa ngi ci ayib bi jàmbur yi rek yow ni ko wolof di waxee da ngay gis ak ëkk ci sa bët di jéem a xool pepp suuf wu nekk ci bëtu jàmbur yor ay bërigo di jéem a lijjanti lii bërub jàmbur wala genn waay lii bërub jàmbur wala garaamub jàmbur ñun ñëpp waaye nañu dellu ci sunu bopp kenn ku ne am na lu la naqari ci sa bopp ci jikko wala aw doxin wala aw melo fexe ba loolee den ci yow war na laa doy sëkk wadis nga nekk ci ayibi jàmbur yi kenn ku ne def nga sa digganteeg sa boroom loo xam ne boo soñoon yaag yàlla rek lay doon waaye benn mbindeef du ko xam kon ku man di doon deel suturaal sa mbokkum jaam deel suturaal sa mbokkum jullit dana sabab sutur ak sunu borom ni nga xamante ni dimbali sa mbokkum jullit dana sabab ndimbalal sunu borom yërëm sa mbokkum jaam it dana sabab yërmandey sunu borom subhaanahu wa taala Sëriñ Tuubaa wax na ne yoon yi jëm ci yàlla tol na ni nooyu bindee fi tol na ni nooyu bindee fi kon nit ñi yoon yooyu jëm ci yàlla benn gënu caa gaaw xolub yërmande nga ëmbal ko bindee fi yàlla yëpp te kum doon kem li nga bëggal sa bopp nga góorgóorlu ba bëggal ko moroomi jullit yëpp ak sa moroomi jaami yàlla yëpp sax bañ a yéene kenn lu ñaaw bañ koo wax kenn te bañ koo di jëflante kenn tey maandu ci jaame yàlla yépp nit boo ko gisee muy def wala nga dégg ko muy wax ak lu man di doon mook boroomam la yaar rekk moo ci doon sawaru gar mooy laabiiru ko ci teey akuk dal bu dee séq ngeen ko te yàlla tax soo mënut loolu nga di ko ñaanal ak dëpp akuk wàññeeku soo mënut loola nga am cag maandu te bàyyi kook boroomam xamoo ci looy mujj xamoo sa moroomam jàmboo bi ci lan lay mujj te danaay faral di wax ni kat xaddis boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni jaam bi dana jëf jëfi waa safara ba seen saa dese ko ci kaw suuf mu jëf jëfi waa aljana ndax bind gu ko ci suñ borom bind loolu war naa tax ñu teey mu ne it jaam bi dana jëf jëfi waa aljana ba seen saa dese ko ci kaw suuf mu jëf jëfi waa sawara dem sawara loolu it war naa tax ñu teey lool ndax nit de mën nga ko gis fu mu toll mi ngi jàng alxuraan fu mu toll mi ngi jàng xasida fu mu toll mi ngi tudd yàlla xam nga mooy li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax mi ngi jëf-jëfi waa aljana kon yow kon ki nga gis yow day mel ni li ñu wax ni ku ca jaar dem aljana ci nga ko gis mu aw ci waaye bu demee ba ca ak mujjëm xamoo ci jëm jëf la suñ borom bind ca ëllëw jël moo ko yóbbu ca safaanub aljana xamoo ndax dafa ëbb ci xolam lu dul noona xamoo ndax dafa wax ci làmmiñam lu dul noona xamoo ndax dafa melawoo lu dul noona waaye yow li nga doon gis ci moom lépp mel na ne li ñuy misaal ne diw day mi ngi ci siraatal mustaqima mel na ne gis nga ko ci waaye ak mujj moo am solo ak xolub nit ki te xol dafa sori yàlla rek a xam li ci xolu nit ndax nit fi mu ne melaw wu ne mën na koo melawoo waaye xamoo lu mu ci jublu loola yàlla rek moo koy xam ak jaam bi waaye keneen ku dul ñoom bu la ko jaam bi waxut te lam la wax di dëgg ci moom doo ko mën a xam waaye ngay gis nit di jëf-jëfi waa safaan ba nga naan kii day font diw nangam lu ne nga topp ko ci ab jaram di wax diw de nangam dong lay liggéeyee nangam lay wax nangam lay def li muy def lii li muy def laa te yow loola lépp sa yoon nekku ci kooko mën naa dem ba ca ak mujjug dundam bindu fekk suñ borom kii ngay waxal lépp ci suñ borom mi ngi ko bind ci aljana ca mujjug dundam mën naa def benn tomb bu tuuti suñ borom jéggal ko ca loola lépp te du ko ca topp dara ndax nit ki kat ñaare léeg-léeg li koy dugal aljana du ko xam waaye léeg-léeg li koy tàbbal safara du ko xam lu ndaw lu sew lay doon li ngay foog lépp mën na koo bañ a doon ndax yàlla rek moo xam gannaaw yàlla rek nag moo xam nañuy rafetal njot ci suñ mbokki jaam ñépp nit loo ko gis mu di ko jëf digganteem ak boroomam la loo ko gis mu di ko wax digganteem la ak boroomam la xamoo ci lu muy mujj yow tamit xamoo ci looy mujj te réere sëg mujj nag war na laa doy sëkk sëkk sëkk xalaat bu dee nit kuy xalaat nga mooy tax waxtu wu ne nañuy seet suñuy ayib di jóor góorlu ci nu ñuy def ba ayib yooyu teqalikoo ak nun ñuy tuubal sunu borom lu nu xiir xiir xiir ci boppam it bu ñu naagu bu ñu naagu mukk loo jub jub jub bul naagu boo gisee ne yow mii de man xooluma lu araam digluwuma ko waxuma ko yéenewuma ko jëfuma ko melowuma ko it bu mu la tax naagu xamoo ci looy mujj bu mu tax mukki nga jàpp ne yaa gën keneen ak kooko mela woo ko man di gis xamoo ci lu muy mujj yow it xamoo ci looy mujj te ak mujj rek nag moo am solo yàlla na nu sunu borom bokk defal mujj gu rafet mooy tax waxtu wu ne nañuy teey nañuy def ndànk nit mën naa njëlbeenoo nu ne mujj fu kenn xamut mën naa njëlbee noonu noo xamante ni kenn du ko rafetlu waaye mu mujj ci mujj nu wes rafetlu te nit kat fi mu tëdd di génn àdduna li muy gis ñeneen ñi ci des duñ ko gis boo gisee ñuy wax wa a'uzu bika rabbi an yahduruni booy muslu ci saytaane ci sa biiru dund ba mu bancee tàbbi ngay musluwaale it boo àggee ci di xar-xarle sa ru war a teqalikoog sa jëmm saytaane bañ faa teew ndax barab bu muy teew la ci ñenn ñi te bu fa teewee melo wu ne mën na la ko feeñoo lu ne it mën na la caa xiir te foofu nekk na ci mettit ak tar-tar sukuraat metti na mettit woo xam ne tar-tarin woo xamante ni ki nekk foofu mar wi muy mar saytaane mën na koo feeñoo noo xamante ni bu ko suñ borom dimbaliwut lam doon def ci lu baax lépp mën na yàqu te su boobaa moo ne ki nekk ak moom day mën na koo bañ a yëg mën na koo bañ a xam mën naa gis mën naa bañ a gis la kooku di dund te fekk kooku li muy dund day mu ngi koy dund fii ne nit mën ngeen a bokk benn lal tëdd muy gént ba yuuxu ci gént gi te yow doo ko yëg te léeg-léeg mu yuuxu ci gént nit yuuxu gént ba bu yewwoo ci gént gi day jeexitalu ci moom mën na caa jële tiitaange gu métti mbaa mu jële ca mbégte te yow mi mu tëddal doo ko yëg kon nag ak mujj gi am solo bokk na ci li koy sabab mujj gu rafet mooy di yéene nit ñi jàmm di wax ci ñoom jàmm di leen ñeewantu di leen yërëm di leen dimbali di leen suturaal te jëmmi suñu borom rek tax nit bi nga tànnee doon ab jullit na man ab jullit laa war ngaa xam ab jullit dëgg-dëgg nan la war a mel ci jikko ngay nemmeeku sa xol di ko seet bu baax bi nga nee ci njàngalim Serigne Touba it ci lay tànqe ci lay naane war ngaa xam Serigne Touba nan la bëgg kogam mel ni nan la bëgg ab taalibeem mel ni nan la bëgg it ab taalibeem doxe ni loolu day day war ab jullit jullit kenn ku ci nekk am na foo jànge ndax du kenn rek moo mën a jàngale lislaam ñépp mag ñu baax ñi ñooy ndono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam leeruk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom def ko ci ñoom ñu dond ko képp ku ne ci seenu ron yaa ngi ci ron yërmande sunu borom képp ko ne ci seenu ron yaa ngi ci ron njëggalu sunu borom yaa ngi ci ron it ngërëmal sunu borom waaye ci kaw topp gi ngay topp ndigal yi ak di bàyyi tere yi kon murit mooy koo xam ni dundam gépp doxinam wépp waxeen wépp xëyam ak ngontam lépp mooy rëbb ngërëmal yàlla nan laay def ba am ngërëmal sunu borom lan laay wax ba am ngërëmam nan laay jëf ba am ngërëmam nan laay melawoo ba am ngërëmam loolu rek moo war a doon jikkoy murit moo war a doon doxee ñu murit kon loolu ñun ñëpp maa ngi ciy soññ sa bopp te di ci soññ bokki taalibe bi yëpp kum ci doon ci nun lépp lu mu doon rafetal ci digganteem ak boromam na koy yokk loo doon rafetal ci sa digganteeg sa moroom it na nga koy yokk te jëm yàlla rek tax réere gi ñu réere sunu mujjit war naa tax nun ñëpp nuy teey tey def ndànk ci àdduna àdduna day wëlbatiku rek àdduna day wëlbatiku rek tey mën naa indi lu la bégloo lool ci suba gi ngoon gi mu jooy loola dalay xëy reeloo gontu jooy loola nga xëy mer gontu bég loolu mooy àdduna kër la goo xamante ni du kër kër la goo xamante ni lu fi naat lu fi nëtëx lu fi tooy lu fi dund lu fi rafet lépp day deñ lépp day jeex jurut ñaawoo jurutit lenn li jurutit añaanante jurut soxorante jurut dëgge ndax fi mu ne dangay gis koo xamante ni mi ngi jéem a jot moroomum jaamam bëgg a dëgge ak moom te fekk kii ngay dëggeel bokku leenu xel bokku leen nu leen yàlla binde bokku leen wërsëg bokku leen lu ngeen di dund sax ci kaw suuf ndax nit fi ne boo téyewut sa dund rek teeyal te nga def ndànk ci mbir yépp ndax xamoo kuy gont nga xamoo kuy xëy nga nit a ngi xëy fees dell ci boppam ay mébét boo bu doon ku doon jàng la ci misaal mën naa dem ba tey lay jot diplôme diplôme am wala tey lay jël fonction ci wàllug liggéey mu xëy gont suñ borom moom ko fii ci dëkk bii jamono yi ma fi door a dikk quatre-vingt-seize defe naa ne am na koo xam ni bis biñ ko fale maire yàlla dogal it ñu jël ko fa mu doon liggéeyee defe naa ne ñu am fonction bu bu am solo bañ ko fa jox jox ko oto bu yees peq ñu boole ko ci takkal ko ndomb ak maire ca bis boobee la otoom daanu mu wuy ji suñu borom te boo xoolee ni ñuy xëccoo àdduna fi mu ne metti na lool waaye bare na la waaye du xëcc te du ko fekk fi ne ñu ngi xëccu rek bu dee ci wàllu saayir si la bu dee ci wàllu àdduna la wet goo gis rek nit ñaa ngi xëccu xëccu gu métti waaye bare na kuy xëccu loo xamante ni fi ne tey doo ko fekk yàllante nag la ngay xëcc du lu baax di ak njub di siraatal mustaqima ndax su boobaa bu la fa suñ borom jëlee it nit ña roy ca la nga doon def ci lu baax roy ca la nga doon wax ci lu baax roy ca la nga doon melawoo ci lu baax boo liggéey mu fekk la fa nga nekk ndax képp ko xam ne topp bi na sasu lu baax moo xam jëf la looy joxe la looy dund la moo xam ay jikko la moo tax moo xam ay melo la nit gis melo yu rafet yooyee ci yow ni ngay dunde ni mu selle ni ngay dunde ni mu rafete mu gis ni ngay jéggalee mu gis ni ngay jéllalee mu gis ni ngay suturaale nit ñi mu gis yu yiw ni ni ngay jëfe aw yiw mu roy la ca loolee dalay topp boo fi génnoon adduna loola dalay topp fa nga nekk mooy tax nit ki waxtu wu ne fexe ba di jiital liy des ci li jeex loole di waru garu ab jullit kon yàlla mi nga xamante ni dara tëwu ko li mu deele ci guddi gii yàlla na nu ko sunu borom boo ko defal nun ñépp muy njëggal gu sax dàkk ci li nu weesu di tawfeex yu sax dàkk waaye di ndimbal lu sax dàkk ci sunu kanam suñu borom ubbil nu buntu xéewal yu yaatu yokkal na sunu fan yokkal na sunu wér te saxal sunu sutura dàkk yàlla buñ gis sunu bopp yàlla buñ gis sunuy jëf noo ngi sant bokki taalibe yépp ci seeni jëf di sant ñi nga xamante ni ñooy taxawee liggéey bii ci kër gi muy sëñ Ganjaay ñi ak ñim àndal ak sëñ Abdou Sakour ak sëñ Cheikh Fall ak imam Tanja ak sëñ Moustapha sëñ Abdoulahat taxawaay matale na rafet na ci kuréel bi sëñ Mbaye Diop nga xamante ni mooy jëwri ni daayira diwaanu waa kër Mbaye Fall bi taxawaay nii ñu taxawee rafet na lool fa tabarakallah nu yokk suñu yitte yokk suñu farlu tey bañ di geestu nit soo nekkee ci lu baax doxal te wéy tey bañ di geestu bul wutu tagg bul ragal aw ŋàññ bul xool ku lay jublu bul xool ku lay wan gannaaw bul ci bëgg wéet bul ci ragale wéet bul ci bëgg wéetal ndax ku ne ci nun bi ngay ñëw ci kaw suuf ci wéet ci nga tàmbalee nit ñi waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakatu
lii ma sol moom moo ma ko jox day sama xarit di sama lépp lii nag yaa ma ko joxoon def na huit ans maa ngi xaar leneen mbàkk jërëjëf
yombal ngoo ko de war ngaa fexe ma di la gis nag waaw war ngaa fexe bu baax bu bu ma gestoo di la gis waaw kay ndax nit boo fasee kóllëre ngir yàlla da ngay fexe ka nga fas kóllëre mu di la gis di la dégg bu gestoo gis la te yàlla rek a tax nga di ko jëmbat di ko suuxat ngir jëm yàlla ndax kóllëre boo gis dafa am lu koy suuxat li ñuy wax ni kañ nga gëcc sa ngoro ga nga ni sii kañ nga gëcc sëñ ba nga ni sii kañ nga gëcc sa tool ba nga ni sii loolu lépp ngeen nga fekkaat fa dara du yomb cofeel googi nga ëmb nag noo ngi la koy delloo ci gën ngaa rafetee ne anam di ko delloo mbooleem soppi yëpp ngir yàlla di ñaan ñëpp it yàlla defal nu tawfiq defal nu sutura yàlla na nu sutura yàlla na nu yàlla ëmbal suturas adduna ak suturas alaxira nun ñëpp ku ne ca nun yàlla na ko ay sir yomb ba bala ngay xaral yàlla sunu borom jox la leneen te lépp it ñu di ko jaamoo yàlla di ko dundal yàlla te dara bañ ko cee génn soxna su léeg-léeg bu jëfandikoo ba noppi danaan yàlla na reese ak leer mag ñi dañ ko daan wax boo jëfandikoo ba noppi ñu ne yàlla na reese ak leer mooy li nga xéwloo yàlla na rees ci lu neex sunu borom mooy li Serigne Touba waxoon Cheikh Issa ne ko mbaa du ngeen yàqu dugub ñu yaakaar ne togg lu ëpp muy yàqu wala togg muy des ngay tuur lu nañu xalaat ko munu mooy nga sabab lu dagan ba am ko xéwlu ca ba sa ba sa biir fees nga di ca yëngu di yëngu di yëngu te yënguwoo ci lu yàlla gërëm bañam warees loolu mooy yàqu dugub mooy tax ñun ñépp nañu dollee gën a góorgóorlu tey dollee gën a farlu ci sunu diine ci xam ko ak ci dund ko ak ci jëf ko te jëmmi suñu borom rekk tax gannaaw xay nañu ci bari ci nun noo ngi waaj bis bi ci sunu kanam te ñu ci bari dañuy xëy di liggéey te noo nga jëm foofa it kon nu bokk ko bàyyi xel ñun ñëpp rek incha allahu di ñaan yàlla may nu tal ak fekk te dañu cee gërëmam kenn ku ci nekk taxawaay yépp matale na yépp yi rafet na njëkk weer wi di dugg ak biñ nekkee ci biir weer wi ba ci jamono bii nu toll kon yàlla nañ ca àgg ci bisum njëggal boobu ci biir bis bii di bisub yërmaande di bisub tawféex di bisub ngëneel di bisub gore ci sawara nun ñëpp sun borom nag di defal ab jaam ci lépp lu ko soob ci tawféex ci jagle ci ngëneel ci yërmaande ci coobareem loolee mu nu defal nag yàlla na ko yàlla saxal ndax ni ma waxee léegi kat ci àdduna dafa tëradi lool ba foo ko takk weesu na ko waaye lu àdduna wëlbatiku wëlbatiku yàlla na nu yàlla saxal ci ngëneelam yooyu yi saxal nu ci tawféexam jooji seeyal nu ci moom bañ jeex ci moom takk saytaane bañ a am ci ñun cër bakkan bañ a am ci ñun cër bànneex bañ a am ci ñun cër àdduna bañ a am ci ñun cër bu nuy lor asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf.
asalaamaaleykum mbokk taalibe yi sëñ bi kii daf ñuy topp ci lëng gi mu ne dafay laaj ñi nga xamante ne dañuy wax ne alquran rek la ñuy topp du ñu topp sunna mu ne loolu bëggoon na ci daal nga ubbi ci boppam ak dëndam
ubbi ci boppam de dana jafe jafe gi moo di alquran daa wax ne wala yesaaloona muxtalifiina nit ñi moom faw ñuy wuute te loolu moom genn garab amu ci yàlla muy dogal moo dogal loolu ndax man bu fekkee damay ubbi boppam su ma ko waxee li ma gëm jàpp ko moo mën naa bañ a dëppoo ak lim gëm ak lim jàpp mën naa wuutee gi la keneen gëm ak lam jàpp te it fi mu ne àdduna bokk na ci am xel nit ku ne li nga gëm jàpp ko mu doy la war nga cay jàngale war nga koy dund war nga koy leeral waaye nag na nga xam ne yow loola sa pas-pas la mën naa bañ a doon pas-pasu keneen loolu mu wax nag lu am la te léegi it yaatu na ci suñ réew mii am na jumaa yooyu boo fa demee ak jàkka yooyu soo fa demee seeni julli ñaari rakkaa lay doon ñaari xaddiis it jàppuñu ko ñoom alquran rek ñoom la ñuy wax quraan yi quraan yi nga xam ne alquran rek la ñuy jël duñ ca def leneen ñoom ñoo xam la tax ñu jàpp loola ki am murit moo xam li tax mu doonum murit kii tiijaan moo xam li tax mu doonum tiijaan kii gëm alquran ak sunna muy waxe yonente bi sallallahu alayhi wa sallam it moo xam la tax mu jàpp loola kadib sunit wala si siha ba tey moo xam la tax mu jàpp loola kon fi mu ne ubbi boppu kenn lu jafe la ndax nit ki moom lenn lay man ku ne li may wax waxtu ne diine moom lala doy la ku ci amut kilifa nag amut fi mu ne gis nga dana ci am ñoo xamante ni sax fi ne dañuy tere nit ki kilifa waaye ki lay tere kilifa yow yaa ngi koy déglu muy dox sa diggante kilifa waaye su boobaa moom mooy sa kilifa ndax fi ne nit bu ne la bàyyil diw yow ya boo ko dégloo rek ci moom nga ne boo ko dégloo rek ci moom nga ne fi ne ki ne la bàyyil diw mii soo ko dégloo rek yow yaa ngi topp kooku léegi kon nit mënut a ñàkk kum topp yàllante nag ka nga topp tege ci yoon woo xamante ni fa yoon wa jëmit dëkk ba yoon wa jëmit mooy ci ngërëmal yàlla waaye nit ku ne ndax fi ne ñooñu ci nekk ñëpp fi mu ne nun ñi ni alxuraan ak xadis lañ téye amaana ñoom ñooñu ñu ngi ci nekkoon ak nokk nekkoondoo woon ak nun doon dund lool ñoo xam nag la tax ñoom ñu dem ba ni alxuraan rek la ñuy jël léegi waaye jëlatuñ wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax fii ne foo dem nit ñi fi ne amunu ak sax dañuy jóge ci kër gii di dugg ca gee ñee di dugg ca kër gee di dugg ca gee fii ne lislaam am na ñoom ñu ngi ciy génn di dugg ci yeneen i diine barki de Mouhamed mi dugal na ma ojo boo xamante ni foofee ñu demoon am ku ci doon rafetlu sunu dem fa bi muy wax ba ci mujj ga dañu man ab jullit laa woon ah te bari na ñoo xamante ni ñu ngi ciy jóge di dem ci leneen ñeneen nit ñi ngi jóge fee tamit di dikk fii boo duggee ci biir lislaam bi noonu la mel nit ñi dañuy génn ci yoon wii di dem ca wey yoon ñii di génn ci yoon wii di dem ca wey yoon noonu mooy àdduna waaye nag wuute gi lu mitti mitti mitti man li ci samam njàngat waxtu wu ne mooy sunuy wëlbatente daal ak a jubbantente ak a labirante bu xol bu xol jóg bu dënn tàng bu een am ak luñ mën di wuute ci diini daal ak luñ mën di wuute ci àdduna yii moom nañ ko seppi teg nee rek man daal bu ma jàppee ne li ma nekk mooy dëgg ku ma ciy bëgg a indi bu sama dënn tàng bu ma jug bu ma la en ca la nga nekk ba jàpp ni danga maa war a fekk si far force man tey kum soob nga ni diw man maa ko doy bu ma la doyatut demal seeti lu la doy ci jàmm ak salaam fu sa xel dale rek nekkal ca loola amul benn jafe-jafe amul benn muskila keneen tamit noonu ndax ku ne sañ na loolu kon loolu mu wax lu yaatu la fi mu ne ci réew mi ak ci yeneeni réew it boo demee waaye diine li may wax waxtu wu ne te di ko waxtaane ci wét ak wétlu ko mooy jàppu dëgg lu jafe la ndax ku ne ak dëggam ku ne ak dëggam nit ki fa ngay dem ba téye ak dëgg dëgg wax ga lu jafe lay doon ndax li ñuy wax xilmul la du nii ci la nit mën a téye ak dëgg mooy nga dem ba sunu borom di la dimbali di la tawféexal am luy yëg luy bàyyi koo ci moom te jaarut ci kenn te loolu jaam ña ca mën a egg bariwut leneen li fi ne mooy téere yi te téere lu doy waar la ndax fi mu ne gis nga tey ci Sénégal gii nu toll lu bari nit ki mën na cee yewoo ndax boroom xam-xam yi ñu gën di tudd ñaare mooy ñi ne ci télé yi ak ñi nekk ci rajo yi di wax nga xam nit ñi ñoom lañ gën di déglu nga xamante ni ñu bari ñu mel ni man nga xamante ni jànguñu buñ doon déglu masala dañ naan diw ca télé sàngam wala diw ca rajo sàngam de wax na ko te diw moomee amaana moom ay waxam ak i jëfam yëpp lu ci ëpp boo ko seetloo ci boppam lay dellu li gën a bari bu toogee la muy gën a wax ka ko defal nangam diw defal na ma teraanga sàngam diw defal na ma lii diw defal na ma laa nga xam ne yow diine ji tax ñu teg la fa li ci ëpp doo ko wax te loola it kamam télé ba ak kamam rajo ba mooy seet ka ko neex mu jël ko waaye amul benn critère boo xamante ni ci la ñuy tànn nit ki ne kii moo war a wax nit ñi ci seen wàllu diine moo leen ci war a wóotu lu mu ci wax ñu jàpp ko lu mu ci waxut kenn du ko téye man ngaa gis ku fees dell ak xam-xam fi mu ne te du àgg ci rajo du àgg ci télé da fekk mi ngi fees dell ak xam-xam te que nit ñi di déglu ndax nit ñi ñu ci bari ñoo mën a yem jànguñu seen diine xamuñu seen diine dañuy déglu donc boo waxee ñaari ñaari baati arab na aaye sàngam xamuñu ndax yàq nga xamuñu ndax yàqoo ni ngay firee it xamuñu ndax wér na xamuñu ndax wér te firim léegi mii tamit bari na ci ñoo xamante ni ni mu leen neexee la ñuy firee ak na mu leen juboo man danaay topp télé yi danaay topp rajo yi ak réseaux sociaux yi waaye dangay gis koo xamante ni fi ne comme jàppanteel dana ko dugal ci aaya bi wala dana ko dugal ci xaddis bi dana ci fay bor dana ci leble dana ci gërëme dana ci xase dana ci taggee dana ci def lépp dana ko ko togg nga xam ne nit ku àgg ci maandu foo xam ne bu sab noonu amee woon dëgg sax nga jàpp ni sax nga nangu ko loolu yombut te dëgg fi mu ne dëgg yàlla la bu ko sab noonu amee woon sax man man nga ko nangul lu ngeen man di wuute it wala nit koo man di wuuteel ci wàllu diine bu ngeen doon wax ba dëgg yi féete ci moom da nga ko nangu waaye fii ne am na ñoo xamante nu ñuy doxee nu ñuy dunde fii ne fañ féete dañuy jàpp ne foofa dong la dëgg war a génn dëgg wurta feeñ feneen te fekk du noonu kon tey fi mu ne nii ñuy dunde am ay boroom xam-xam yoo xamante ni tey fi mu ne mën nañoo nekk ak buur mën nañoo doon ñu ñuy tudd ay kilifay diine te fekk sax ñoom seen diine sax leerut ci ñoom te moo ne mbooloo mu dul jeex mën na leen a topp te fekk ñoom nañ war a xame seen diine des na te mbooloo moomee fi ne toqiku nañ ci ci ñooña topp leen doyloo leen luñ wax loola la luñ waxut du loola te loolu mënoo ca dara te am na ñooñ loola seen bakkan lañ ca teg loolu loo ca man tey lislaam tey bi fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee bi tiiree waxee ni rek fa imshaaku xamma sajara baynahum tii li xewoon ci seen diggante bari na rëq-rëq yi am yoo xamante ma nga tàmbalee ci ndoortal lislaam yo ay wuute yoo xamante ni te foofa la tàmbalee ba fii nu toog di ko waxtaane tey fi mu ne bu ñu nee la Serigne Touba Xadimal Mustafa bi natt bi agsee ci kawam mu war a liggéey li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci géej gi am na ñu fi toog ñoo xamante ni ay niti daara lañ di duñu jàng alxuraan jàngoon hadis ak lépp di ñaan mu bañ a dellu si loolu bu ñu la ko waxee dalay jaaxal da nga naan loolu nan la war a mën a nekke fi mu ne tey am na ay kilifa yu diine yoo xamante ni seen naataangooy kilifa diine loo mën di jëf ci lu baax ci diine ñu gis ko xam ko xàmmee ko duñ ko nangu ndax xol xolub kañaan buy tàkk duñ yam ca loolu waaye dañuy jël ay baat sax man koo teg ci sa kaw man la koy dendale ngir seen bakkan ngir seen bànneex nga xam ni dalay wóor ni sëñ sàmbay daan wax yal na ko yàlla dooli leer ak ngërëmam ñi war a faj nit ñi ñoo feebar ñi dem ba war a faj nit ñi ñoo feebar sëriñ ak taalibe du toog ci kaw rek ngeen toog ci suuf de déedéet dafa am lu nu boole mooy nan lañuy fexe àndug dëgg àndug jub di di tawaasi bil xaq ak sabru di dénkante dëgg ëkkug muñ loolu mooy lu nu war mooy fu ñu jataayoo fu ne kenn ku ci nekk su jógee man caa jànge ni man day war na maa yokk sama yitte ci yàlla ndekete man mii kat war na maa gën a daw bakkan war na maa gën a daw bànneex war na maa gën a daw adduna war na maa gën a bàyyi xel nit ñi ñi ma ciy ñoddi di ma jëme ci lu baax ak ñi ma ciy ñoddi di ma jëme ci seen bopp ak ñi ma ciy ñoddi di ma jëme ci adduna ak ñi ma ciy ñoddi di ma jëme ci seen bakkan loolu mooy li war a am waaye diine wuute gi ci ne du dañ mukk di am waaye man daal li ma ci digg ak li ma ci jàpp mooy lépp lu nit nekk te nga jàpp ni li nga nekk mooy dëgg ña nekkut ca loola bu leen en bu sa dën tàng bu sa xol jug bu sa nja bu sa njortu ñaaw ci ñoom yow la nga defee ni mooy dëgg ak njub ak siraatal mustaqima dee ko wax dee ca labiire dee ca woote dee ca ñoddi waaye ci jàmm waaye ci jàmm ndax man bu dee sama pas-pas la mooy ab jullit laa ci njàngalem sëriñ Tuubaa ci lay naane kooka mën naa bañ a yëg kuy sëriñ bi mën na koo bañ a dund keneen mën naa dund leneen kenn keneen mën naa bañ mën naa dund leneen keneen mën naa dund leneen te kenn ku ci nekk fi mu ne la muy dund loola rek la jàpp ni mooy dara la ca des lépp jàppiwu ko nen bu dee ko amutum xel fekk adduna it du noonu ndax tey fi mu ne am na ñeneen ñooñ fi ne ñu ngi ci biir lislaam waaye jàpp nañ ni beneen yonent bu dul yonent bi am na te loo ñoom loolu mooy seen pas-pas ñi nga xamante ni quraaniye lañ loolu mooy seen pas-pas ñi nga xamante ni salafiste lañ loolu mooy seen pas-pas ñi nga xam ne ay ibaadu lañ loolu mooy seen pas-pas li nga xamante ni ñi nga xam ne mutasawifoona lañ loolu mooy seen pas-pas waaye man daal jàpp naa ni nit ku man di doon bu sa jikko rafetee doo yéene kenn lu ñaaw doo ko wax kenn te doo ko jëflanteeg kenn man jàpp naa ni kenn gënatu la ak foo mën a féete waaw nit daal bu fekkente ni du lor benn mbindeef ci waxam ak jëfam ak meloom man jàpp naa ni kenn gënatu la ndax objectif diine ki jàng te xam dëgg dëgg dëgg lan mooy diine mooy jikko ju rafet yonent yépp seen doxalin ci kaw suuf gannaaw gëm yàlla te te gëm yàlla googi li tax mu gën a samp gën a taxaw moo la yóbbu ci jikko ju rafet ndax da ngay boo gëmee yàlla dafa am lu aju ci ak gëm yàlla mooy gëm aljana ak gëm sawara gëm dogal gëm bis bu mujj ba yooyu nag mooy tax sa jikko rafet bu loolu setee ci yow mooy tax sa jikko rafet innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq yonent bi suñ borom daf ko yónni ngir mu mott li jikko yi rafet yi fi mu ne nit ki melaw wu man di amee dëkk la julli dëkk la jàng alxuraan dëkk la lu ne waaye bu su jikko rafetul yàlla soxlawut ci li ngay def daal waaye nit su jikkoom rafetee yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni ki may gën a jege ëllëg yow ma mooy ki gën a rafet ci yéen jikko kon nun ñëpp nañ maase tàggat suñu bopp fu ñu mën di féete jikko ju rafet nañ ci tàggat suñu bopp te di ci toq suñu bopp xibaar daal di nag ni ñu koy defee wuute googu du deñ di am téere yi foo ci dugg ci téere yi fiq yi boo duggoon ci xalil nasarun tawilaani tawilaatun du sax fenn kii day wax lii ci ngir yi ñeenti ngir am nañ te ñoom ñëpp fiq la ñuy jàngale te niñ koy jàngalee bokkut te moo ne ñoom day kenn du ci yonent bi duñ ay sahabi yu sax waaw te ku ci ne mën naa tànk ci ci ci ci ci ña leen jiitu woon kon xam-xam moo bindoo noonu waaw waaye moom li may ubbi ci boppam mooy na jàng na fexe xam diineem nit ki soo jàngee alquran jàng xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ah jële ko fu la doy nga jàpp loola ndax man mën naa koo wax loo xamante ni mën na koo jàpp mën na koo bañ a jàpp mën naa koo wax man li ma doy bu dee doy naa ko moom mu dund ak man loola keneen mën na koo doy keneen mën na koo doy waaye wuute gi daal ñu xam ni loolu moom faw muy am tey fi mu ne boo duggee ci tarixa yi képp tarixa boo ci mën di jël kilifa yi diine yu bari ñoo nekk ci biir tarixa ba mën naa doon sant ka ka def tarixa ba aw santam ñene yeneeni sant mën nañ caa nekk ñoom ñëpp di ay kilifa waaye ku ci ne fi mu ne tey fa mu féete day jàpp ne fa la lépp nekk fii ne tey boo duggoon ci murit kenn ku ci nekk fa mu féete jàpp na ni la sëñ Tuubaa am lépp foofa la ko def bu ñuy wax loola la ñuy wax bu ñuy dund loolu la ñuy dund waaw te moo ne lépp kenn ki rek la nit ñi dañuy dem ba ci seeni wax sax léegi ñu ngi fenqale kilifa yi waxuma la sax léegi ñi njiital turux yi waaye tarixa bi nga bokk sax da ngay dem bay féq ci seeni wax ak seeni jëf dañuy dañuy féqale lu baree baree bare ci seeni wax te duñ ci bàyyi xel kon nag ah loolu lu yaatu la fi mu ne ci réew mi débat bi it yaatu na ci lool ci seen digganteeg ñëpp waaye nag li am solo daal mooy kenn ku ci nekk fa nga ne jéem a jéem koo xam bu dee ab jullit nga fi ngay jànge sa diine fexe koo xam loolu lu am solo la ndax dana tax lu jug du la fëkk ndax bu nee boo nee man ab murit laa te tey buñ la laajoon téere yi sëriñ bi bind ci fiq xamoo ko yim bind ci tasawuf xamoo ko yim bind ci yeneen yi xamoo ko yow daanaka da ngay déglu rek ay waxkat te yow sa niveau jàng soriwut su boobaa loola mën naa jural nit ki ngaañ mooy tax li ñu war a njëkk a def daal mooy jàng waaw am na ci loolu nag jàng yàlla moo koy def ci nit ki nga xam ne nit ki soo jaxasoo woon ak moom mën na laa yar te daloo baax lu jafe xam la nag lu jafe xam la waaye sunu boroom may na ay jaam yooyu soo jaxasoo ñoom ñu yéege la ak ci yoon wuñ ko man di jaare ba lu nit man di jàng su waxee nga xam fam toll la fam yam yàlla nu yàlla dimbali xéeru na ci boppam te defal nu mujj gu rafet yàlla mi nga xamante daal kum gindi doo réer kum réeréeri doo gindeeku yàlla nu yàlla gindi gindi goo xamante ni ñàkk gindi ku dur topp ca gannaaw mukk salaamaaleykum wa rahmatullah
ñun ñuy wàllu ndox ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax waaw defal nañu lépp lépp lépp lañu defal yal na ko yàlla yàggal bi baax a bi sant naa la bu war na yàlla na ko yàlla jàppale ndax bu kat teg bu jàngal bu laal nekk baax bu ma mel boppam ci diine nekk baax daal ñëw dara dara def comme ne teg wala pour di tax am say am naa kenn ngay làmbool di jooy waxuma la jurit de ay tàngaayam nekk boobu ñu doon am fan nii borom wax dañu sant yàlla nañ ko tey bu baax bàyyi nag lu may gën a sax mooy man bii alxuraan jaww ma ko def naa ko bokkal nit nit nit. dinaa bi dinaa ko naan ci moom.
li ma doon li ma doon wax léegi àdduna kooku di wax mooy du ndox yaakaar naa ne ñun ñu fa dem ñëpp xam nañ ko ñi nga xamante ni topp nañ ko sax ci réseaux sociaux yi xam nañ béréb ba na mu tëddee fi mu ne daara jooji fi ma ko def ki ma ko jox ab chrétien la te moo ne moom day ay bokki chrétien am soxla woon nañ foofu te tëriwut mu jox ma ko te moo ne ba tey mi ngi ci diine christianisme dañoo daje nag ci oto bi bi may wàññeeku bay jóg mu ni ma sëriñ gi baaguma ak yow fii loo fi soxla ci suuf tam ne ci sama loxo fekk ma ngay ngir may sang suuf ma jox la ko ma ne ko ah aljana day ku dugg nga dugg ku duggul nga dugg lool nag maag moom la du maag kenn maag maag maag moom la waaw ma ne ko aljanna mu ne ma xaa ma ne ko ku dugg nga dugg ku duggul nga dugg yow déet moom ma aljana di yàlla moom ma aljana de xam naa loolu de xawma it fu mu ma jëme suba it xawma fu ma jëm waaye man loolu ma wax ci moom lu ma xam ci moom la lu ma gis ci moom la man nag sama wax weddi gi gëm gi li may waxee waxtu ne ñoo yem ci man képp waaye li ma xam daal moom ku dugg dana dugg ku dugg dana dugg moom ne ma àgg ca ne ko ku la tëree dugg dugg nag waaw ku la tëree dugg du dugg lii may wax waxuma fit wu rëy waxuma ñime ko waxuma dural ko ndax xam naa ne sama tànk yi sama loxo bii saa su ma xëyee maa ngi gis niñ koy takke tànk yi fu ma xëyee maa ngi gis niñ koy takk mu wóor na may danaa daje ak moom waaye nag ñu bàyyi maak moom nag ndax maak moom la kat li may wax man la ak moom du ma kenn kum neex gëmal kum naqari weddil yaar yooyu rek la waaw loolu rek la kon nag yàlla noonu yàlla gën a dimbali te gënoo jàppale te gënoo taxaw ndax li may doon waxtaane léegi ak mujj moo am solo te gis ngeen sunu borom nag ab nit rek moo mas di taxaw ne yàlla nee na ma xar waxu ko bëy waxu ko gëléem waxu ko fas waxu ko mbaam waxu ko nit a ko mas di wax wax naa ko sànq ci bëccëg nee naa leen kat fi mu ne léeg-léeg may wax dara loo xam ne ñi ma toogal dana mu wóor ne am na ñooñ gëmuñu ko waaye ñàkk ga gëm du ma naqari tey duma ko yëg moo gëm gi ñoo yem ci man képp képp képp képp képp ni nga xamante ni nit jublu ma ak mu woon ma gannaaw ñoo yem ci man képp gëm maak weddi ma ñoo yem ci man képp xas maak tagg ma ñoo yem ci man képp yëgatuma loolu man moom rek lay yëg mënatuma yëg leneen su may wax dara ci sama jëmm gis nga caméra bii may jan lool image bi muy jël ak lii ngeen di jël bis bu set damay bàyyi xel gannaaw sama bakkan ñu koy topp di ko xool am na kook fi mu ne ci kàddu yooyu ci lay sukkandiku di liggéeyal lislaam liggéey boo xamante ni mën naa am fa mu tàmbale waaye du am fa mu yam te fekk man sàng nañ ma suuf bu yàgg du jaas du mën a ñàkk kon yàlla li mu def faw di ko waxtaane di ko sant nag du lu mën a ñàkk yàlla moo mooy jëf lu ko soob wallahu yaxtasu bi rahmatihi man yasha la wax ku ko soob ma yàlla ku ne mënu koo sooba ko kum soob la wax waxut góor waxut jigéen foofu waxut jullit waxut chrétien waxut kenn ku ma soob la wax fi ne alxuraan dara gënu ci wér loolu yi ngay waxaat yépp naan boo defee lii lii boo defee lii lii jëfe coobare jooju moo gën a wér lépp ci yàlla alxuraan loolu mooy li ci gën a wér yàlla lim ne lu ma soob ma def ko moo gën a wér lépp loo man di def mën na koo teg nee def coobareem loo man di wax mën na koo teg nee def coobareem coobareem jooju nag yàlla nay tawfeex ju sax dàkk ci noonu tey ak ëllëg salaamaaleykum.
Baye yow da ngaa baax Mbacke yow da ngaa baax Baye yow da ngaa baax da ngaa baax Mbacke xam nga loolu ma ne la da ngaa baax maa ngi jégalu baax Mbacke yow da ngaa baax bu lépp weesoo sax Mbacke yow da ngaa baax koo romb mu baax ku la siyaar si baax koo ree mu baax. da ngay may oto da ngay may xaalis da ngay may soxna da ngay may kër da ngay fekk ab élève bu jàngam yàqu nga jël ko bàyyi fere ni nii nga di ko fayal ba mu baax ba mën a njàng ba mën a nekk ay école yi kawe Mbàkke yow da ngaa baax Baye da ngaa baax de Mbàkke Ahmadou Mbàkke maam da ngaa baax yow Mbàkke je t'aime daal je t'aime I love you Mbàkke da ngaa baax.
gis nga àdduna nag lépp cofeel la àdduna lépp cofeel la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ak saxaaba yi am ku ko romb ab sàmm mu ne ko kañ la saa di taxaw mu ne ko loo ko xaroo mu ne ko xaroo ma ko julli gu bari xaroo ma ko koor gu bari waaye xaroo naa ko sopp la mu ne ko almaru maha man ahabba nit ki ki mu bëgg moom la ko yàlla di booleel ëllëg mooy tax ak cofeel mooy lépp man day nu ngeen ma soppe sopp naa leen cofeel bu xaraw fuuf yàlla xam na ko te sunu cofeel googu nag feeg mi ngi dëggu ci nun li nuy lor du bari de ndax nii nuy jàkkaarloo nan la ñuy jàkkaarloo jannatul firdawsi xaalidiina fiha maadaamati samawaati wal ardi kon yàlla nu yàlla téyel sunu cofeel ci moom téyel nu ko ci yonent bi téyel nu ko ci sëriñ bi téyel nu ko ci mbooleem bindeefam yépp te sàmmal nu ko boobuñ noonu kenn ci anam gum mën a doon jërëngeen jëf kon ni jàng mën nañu wéyal ñiy def yëfi séréer it mën a def yëfi séréer waaw kay du ndox googi sëñ Abdou moom yi di wax it nu xam ni man damaa jàpp ne li ma doon jéemantu lépp dama doon jéem rek ndekete waaye liggéey bi dëgg foofu la man loolu laa jàpp bi ma fa mujjee noonu nii damaa jàpp ni li ma doon jéem ci lu baax lépp lépp lépp lépp ndekete man tàmbaleeguma man yëg-yëg boobu laa am foofu te yëg-yëg boobu ni ma ko amee it ba bërki bii am na ko ma ciy waxtaanal laata muy àgg ci ci ci loolu mu ne ma waaw sëñ bi nu ndox nu ndox nu ndox fekk dikkum foon muy sama collègue bu baax muy sëñ Pape Ñang mu ne ma loo am xaj na foofa noonu la ma ko wax loo am rek sëñ bi mu ne ma ah mu ne ma xaj na foofa liggéey baa nga foofa de ma ne ko yow day xel yu rafet yi day mel ni dafay daje fekk man loolu la ma fa yéene bëgg ko fa ba ma fa yeggee fa saa sax wax naa ko fa ne daara ja de taxaw na biñ fay dem noonu yaakaar naa ne ñoom ñi ngi woon ci téeméeri nit ak ñaar fukk ak benn dëkk bañ njëkk aw bañ fa jógee yaakaar naa ne ca semaine bi ci toftalu yóbbuwaat nañ fa ñetti jàngalekat kenn ki mi ngi ci dëkk boobu daanaka defe naa ne fi mu ne nii ñu ngi war a toll ci ñoom ñooñu donc juróom-benn fukk war nañ koo ëpp ci ay dongo yoo xam ña ngay jàng foofu. am na ñeneen ñoo xamante ni ña ngi def ay délégation di fa dikk ngir am yéene loolee ñu yaatal ko foofu ba tax na bu ñu waree sama yitte jëpp. foofu laa ko bëgg a jëmee liggéey bay tàmbali nañ ko tey jii ki doon def mini forage boo xamante ni tey ci la ñuy tàmbalee mool yi dem na ba am nañ ndox bënn na mini forage boobu bënn na ciment bi dem na tey suuf si tàmbali naa dem te yëpp dina dem am naa yéene semaine bi njëkk bu ñu waree semaine bi ci njëkk bi ci toftalu ñun ñëpp nu bokk fa daja tàmbali lee ñu tàmbali woon kat muy daara ji nga xam tàmbali nañ faa jàngale ndekete loola moom as kukus rek la waaye daara ji moom mi ngi door a bëgg a taxaw nag te incha allahu bëgg nañ bu nu yàlla mayee nu fekk déwén ci jàmm ak salaam bu ñu fa delluwaatee mu wuteeg lool niñ fa demee woon te lépp ànd ak jàmm ànd ak tawfiq ànd ak sutura liggéey bi jurut kenn di xaar ñu di la soññ ci dara léegi ku ci ne yaa ngi gis yaa ngi dégg yaa ngi xam képp ku bëgg lu baax jërul ñu lay soññ ci dara ndax ku ci ne lam war a def xam na ko ba tax na liggéey yi ñu doon def lu mu ca man di doon nañu xam ne dañuy door a bëgg a tàmbali te kenn xamul fu sa dund di yam ni ma ko waxee léegi kon fu ñu toll nañu njëkkanteeg sunu dig ci di jëf loo xamante ni luy des la ba fàww te liy des ba fàww mooy loo xamante ni foo ko def ëllëg boo fi jógee it loola day des te duutul jeex mukk keroog bi may jóge fii ci kër Mbay Fall di sañ ci fecc manaarul huda ci kaasub seng la dëkkoon te daara ji nii mu mel li ci dolleeku boobu bariwut waaye gis naa ni su ma ko génnut ci sama sago it dees na ma ko génn ji ci sa ñàkk sago ba tey manaarul xudaa nee mu mel mu mel ni waaye booba ku ne xam na ni njëkkiwut nee mu mel booba metti na ci fànn yu bari ndax dangay boole yaar fi nga ñëw bu dee am am rek moo la fi indi woon sa tànk du fa tege bu dee daraja moo la fa doon indi sa tànk du fa tege danga boole nit ñi ñu ngi lay xeex ci seeni wax ñu ngi lay xeex ci seeni jëf ñu ngi lay xeex ci seeni melo waaye nag yàlla rek mooy aji des te yàlla rek a mën a sàmm ne booba daara ji amagut buntu kër daanaa xëy gis ngaskalu yees ngaskalu yees mooy fuñ gas ngas lu yees bu ma sulliloo ay biteel laay gis ak i béjjën yàlla xam na ko biteel yi su ma ubbee maay ubbi de ay xaatim ngay gis ay xorom béjjén yoon sox lu ne waaye yàlla nag moom lim namm ci ab jaam ci tawféex kenn munta dox si diggal loola man zanna xayrallaahi yuxni aw yadur fa saaka fi daarin sooka dina dum anafa wa duru min arrahmaani laysa min albidaani wa sodaani nanu ànd ak gëm yàlla ak wóolu yàlla ak ragal yàlla ak yaakaar yàlla ak topp yàlla mooy lépp ndax am na ñooñ kat fi mu ne bu fekkoon tey luñ bëgg ci nit rek yàlla defal leen ko kon man de sama yax xam naa ne seey na bu yàgg ci biir suuf si waaye du caa génn li nga bëgg la yàllay def yàlla lim bëgg mooy am te lim bëgg ci jaamam bii kat mooy di ko tawfeexal ba keroog roo xam di teqalikoo ak jëmmam ak képp ku ànd ak moom te jëmm yàlla tax yàlla nu yàlla defal mujj gu rafet yàlla nu yàlla defal mujj gu rafet yàlla nu yàlla defal mujj gu rafet kon nu ñaanalante